di beral nuyoo la commune de Tivaouane Diack la commune de Diamaguène Sicap Mbao ci turu monsieur le maire Alioune Badara Bey. mais de nous tous les ASC Abdoulaye Diagne wax na ko ASC Sabé ASC Diack 1 ASC Gamagan, ASC Darou ASC Ngalam ñoom ñëpp jàpp nañ ci bis bi cela veut dire que c'est la commune de Tivaouane Diack Sao en tout cas gis naa ñëpp ah assisté nga ASC Mbolo ñëpp ñëw leen teew pour lan pour le bien-être de notre commune Abdoulaye wax na ko l'émergence commence par les, par les quartiers, par les maisons, après la commune, après la commune, c'est le département, après le département, c'est la région, après l'école, la CDD, c'est le travail. C'est la sixième édition. maag ñoom ñu xalaat démb ak barki démb tey yàlla dogal na may na ma bokk fekke ko dama war a assemblée de dama daw te la ma daw lu am solo la mooy ki nga xam mooy lu jëm communautaire wàllu mbedd yi wàllu tali yu yàqu yi muy Samba Diobel Ka ma waroon ñëw tey mais mënu ma dem di bàyyi li ginnaaw ndax lii moo fal lii moo ma jàppale kon nag maa ngi remercier ñëpp

pas une première jàmm gën CDD bi woote fi lii ñëpp teew kon dañuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di jël sant kee gërëm gi di ko teg ci loxo le député maire Moussa Fall mu jàllaleel ñu ko ci monsieur Badabé jàllaleel ñu ko ci population bi ndax dëkk boo fa bëggee dugg da jaar ci bunt bi te moom mooy dëkk bi kon père ñoo lay sant ci sa teewaay bañ la koy tuddee yaakaar naa ne nekkoo député nekkoo maire kon boo ko nekkee tamit dañuy tàmbaliwaat rek ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp. di jaajëfal ñëpp comme ni ko père waxee ñuy gërëm suñu partenaires yi muy les jeunes Baye Fall les jeunes chrétiens King Traiteur ñoo ngi lay sant di la gërëm ndax li innovation la tey set setal ba pare defar ay ndekki ne ma dafa defar ay jus d'orange yoo xam ne boo ko naanee dangay ngay sawar pour ngoon nga mën a supporter Sénégal jël ndam li kon yàlla senegal jël ndam li mais nag li set setal bi di am solo lool jàmm gën set wecc dafa am loo xam ne moo fi nekk d'ici neuf mois su tawaatee dañuy demaat ci inondation yi te population Diamaguène Sicap Mbao Tivaouane Diacksao dañoo sonn ci muy taw ñu indi ay moto pompe pare ñu delloo monsieur le président de la république monsieur le ministre de l'environnement ñoo ngi leen di ñaan ngeen defal ñu ay canalisation ay égout bu tawatee mu ndox mi dem Diamaguène am jàmm lool lañ bëgg depuis 1960 ba léegi li ñuy dund dafa métti kon loolu lañ bëgg beneen bi mooy problème foncier bi nga xam ne moo am Diamaguène muy 454 maisons yi ak sunu waa mbokk Cité Saba yi nga xam ne tey jii terrain bee nga xam ne fa lañuy xale yi di fooyee fa lañuy def éducation physique benn nit ñoo bëgg koo jël dañuy ànd ak ñoom ci combat bi ndax ñun jàmm gën moo ñu ñor Tivaouane Diacksao moo ñu ñor si Kamba ñoo ñëw post carré ba Fass Mbao képp ku fi def combat pour ñun ñun nga ko defal dañuy ànd jàppale la ci leneen li mooy armeel yaa ngi nii bientôt xam naa Max dina prononcé si date bi ndax mooy coordonnateur bi ànd ceeg li ma bëgg wax yëpp laal problème bi bu ñu ko doon lim duñ li may ñaan mooy jàmm gën dafa am esprit yoo xam ne dañ ko war a dépasser dafa am foo xam ne bu ñu fa tollatee tolluñ ci ci moment politique temps d'élection lañ toll mooy nañu fexe bokk ndey bokk bàyyi xool kiy jëmale dëkk bi kanam ñu ànd ak moom fexe ba may ay canalisation baax fexe ba sunu titre foncier ñu jot yi fexe ba xale yi di liggéey fexe ba jàmmagoon ñu aménager place yi loolu la ñuy ñaan ñu bokk ndey bokk bàyyi Père Moussa xamna du yag dara dinañ la jël audience du fi xaj problème yi nga xamne ne gis nañ ko au niveau diwan tek sa ñu exposer lako ñu lay ñaan yalla suñu borom buñ la ko nga daf ci safara mu faju encore une fois dal ñoo ngi sant ñep di gëreum ñep di jaajeufal ñep di beral ak cant nak Adama Bey borom AB Corporation mo japp ci bu baax ci tisset yi di gëreum sama rak sal business consulting amuñu fayam ñuy gëreum wa asd industrie suñu frère Ousseynou bi galas wooyee la ne ko loolu na sa xel dal di ngeen am sonorisation may nañ ñu ay produits yoo xam ne bu soobee yàlla ndigay nogoy dina ko séddale jigéen ñi pour ñu fóot yére yi nga xam ne moom lañ doon seet seetalee ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lu ma ci fàtte Cinco CSE ñoo ngi leen di gërëm Cheikh Bass médecin bi moo fi indi benn chargeur bi tey ku gis xam ne benn chargeur lañ doon demee tey ñu am trois chargeurs te yokkul da ngaa wàññi